li jiital ci waxtaan wi mooy jaajëfal population Ngekox bi nga xam ni ñoo choisir le maire ak équipe municipale bi fi nekk pour ñu doxal commune bi ñoo ngi leen di jaajëfal ci confiance boobu nga xam ne jox nañu ko maire ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor bureau municipal Ngekox te di ko liggéey liggéey bu mucc ayib di ko defe ci suñu suufi bët ñu mën koo seede bon tey nag ñu daje fii pour leeral leeral loo xam ni dafa am lenn ci opposition bi walla kenn ci opposition bi ku jóg pour gàkkal suñu commune bii nga xam ni moom lañu moom fi la ñu fekk baax baax fekk ñu fi dafa am lenn ci opposition bi jóg bëgg gàkkal commune boobu ba tax ñu jël ay tuuma ak ay wax yoo xamante si nii solul mbubb solul tuway bëgg a taasal commune bi ba ñi nga xam ne xeme moom nañ nga ko wax au national ak au niveau international Nous sen tank ci commune Nous wax ñoñu ni leen Nous lu mu nous jaral dinañu jaral lu raw ñun doomi pour campement di continuer di am image bu au niveau national ak au niveau international ñu ñew ci euh, suñu frère Mori ni ma ko tout à l'heure ñu pour tontante nous ñew pour Nous ñu koy wax ni dafa am lo fi nga di tous les informations moom nag loolu lay essayé def moo tax toujours bu waxee bu vérifier ay waxam da ngay gis ne wax ji jëru dóor sa doom day tëdd néegam bëgg information yi am yëpp mu di ko xam kooku mënul nekk bu ñu sukkandikoo ci sortie bi mu def démb premier point après di dina ñëw ci jëmmi Mori ci boppam waaye li ëpp solo moo ñu wax ak askan wi ba pare première point bi mu laal mooy def ni am na 6 millions yoo xam ni euh, dañ koo jël dem tabax ci benn toilette fële ca marché jàmm gën bi nga xam ne dañ koo fekkoon mu taxaw jiitu fi maire jiitu fi ñudul maire maire ñëw ni nañ ko liggéey pour waa jàmm gën bañ a ñëwati ci marché bi ñu yem fa loolu lépp nekk ci yaatal nga ko wax Mori ñëw ni dañoo jël benn 6 millions wala 6 millions 500 tabax ci benn toilette ñu koy wax ni mon frère boo soqi woon ay jéego dem ba ca place ba di nga fa gis lu dul toilette toilette nga fa fond septique ma nga fa def nañ fa benn hall boo xam ni moo gën a rëy ancien hall ba ñu fa fekkoon ña nga fay tabax mosquée muy jàkka ju julli ñi di jullee loolu nag dañ ko koy pardonné parce que dañuy jàpp ni xale buy jàng raam la faaw mu def ay erreur loolu mënu ñàkk mais dañ koy wax ni ko il faut aller vers l'information pour xam li xew 6 euh, millions yooyu muy wax ñun lépp lu ñu def dañuy jaar ci procédure bi normale parce que maire ak équipe bi mu nekkal dañoo xam lan mooy gestion communal di ko doxal ci loolu def ni amul contrat boo xam ni def nañ ko ci marché Diamaguène bi ñu koy wax ni mon frère contrat bii ngay gis ki ko def mi ngi ko def ak DRP muy contrat wu marché Diamaguène boobu ko doon laaj kon góorgóorlu ah la ca dolli ko mooy bu fekkee dafa wax budget mu ne budget bi moom xam na ni li nga xam ne état moo ko war a dugal ci nga fakk commune bi loolee de exeegul ci commune bi waaw loo xam ni moom xam na ni exeegul ci commune bi lu mu ñu koy laaje ñu koy rectifier ci ni ko budget bu ñu nee dañoo soxla tabax marché jaama gën ñu ne 8 millions la ñu soxla du forcément la ñuy tabax 8 million la bu ñu ko bu ko entrepreneur gagné ci 4 millions way way la fa dess dañ ko delo ci nga ko commune bi delo ko ci bisse ba bisse ba mën a defaraat leneen kon muur gor gorul ñu ñew euh, ci deuxième point bi muy abattoir bi euh, abattoir bi daf ci wax ay erreur yu graw daf ci wax ay erreur yu graw ta lolu population nga ko wax duñ ko ko pardonner parce que dekk bi dañ ko sang ba mu set duñu nangu mu koy tilimanaa ah. abattoir bi bi mu nekké fé maire bëgg koo defaral buuse yi ba mu méngoo ak jamono préfet mi nga xam ne mooy représentant état moo def benn arrêté pour wane ne abattoir bi ay la yéwén mën a nekk fii parce que fa mu nekk ay nit dañ fa dëkk te xam nga ne fu ñu lottalee xet geek yooyu loolu mënul nekk ba tax na mu def benn arrêté arrêté baa ngi nii ma leen di wan muy arrêté préfectoral bon bi préfet defee arrêté bi ba pare ba ñu xam ne foofu moom état wax na ni mënatuñ ko faa def ci la benn doomu Ngekoox bu am volonté ku bëgg Ngekoox ku yërëm buuse yi ni man dinaa jël sama terrain yii jox ko buuse yu Ngekoox may ko commune Ngekoox pour buuse yi man faa dem continuer fa seen liggéey loolu moo gën ñuy jéggi Ngekoox di dem ba Sindia mu leen di coûter transport bi mille francs wala 10 000 francs seen bénéfice di néew doole loolu man doomu Ngekoox en tant que doomu Ngekoox duma ko seetaat ñuy wax ni kooku nag bi mu defee loolu

bu Mori d'accord woon ñëw am oyof gi war ñu jàngal ko ko nit doo tatone euh, euh, contrat bii ba day DRP la mooy abattoir bu bees bi nga xam ne moom la ñuy tabax tam doon wax ne amul euh, amul amul amul amul appel d'offre ñu koy wax ne na góor góoru c'est fo loolu amul abattoir ba ma nga fa ña ngi koy tabaxal buuse yi doomu nga ko wax moom volonté wu beneen doomu nga ko wax jóg fële takk tuwayam ni loolu du ame yéen buuse yi da ngeen di jëlaat seen xar yeeg seen nag yi dem sinja diko fa diko diko fa defare mitit woowu man mouri mom la leen yene lolou nak luma ko jaral dinañu ko jaral ñun pour ñu mettre population bi dans de très bonnes conditions bon suma diké ci euh euh limu wax ci impasse impasse euh, impasse ci as yi ci yi ci yi ci boru boru autoroute bi mom wax nako ko bu fekkee ne autoroute la dédommager Azerut mooy des di téye loola loola nekk ca loxo état waaye kon bu amee question du dem laaj ko Azerut kon kay moom li mu wax bu ñu ci sukkandikoo mooy yoonu maire nekku ci yoonu commune bi nekku ci bu ci commune bi soxlaa dafay bind pour ñaan jox ko loola mu def fa lam war a def koy wax ni ko loolu bu ca soxlaa information préfet ngi nii na dem ci moom na dem Azerut laaj leen euh, la nga xam ne moo ci dooleeku mooy ginnaaw bu ñu dajalee yi mu wax yëpp nga xam ne lépp ci. tâtonnement la ko teg ak làmbatu ak jàpp ni moment wu wax jot na problème am na au niveau euh, ci biir partem il faut mu jóg jéem a taf yëngal pour wax loolu ñun comprendre nañ ko yow jiituwuñu ci politique euh, moom Mori franchement parlé li ma waxoon ci kanam waxam dañ ciy demee duñ ci duñ ci waaxu dañ ciy dox ay jéego yu ndaw ndax da dul jar waaxu bay daw barki démb boo njaay la tuumaal suñu premier ministre tuuma ju jéggi dayoo tuuma ju jéggi dayoo wëlbandiku dellusiwaat ci commune bi ki nga xam ne mooy fi dëkk bi mu tuumaal ko ba moom mu jaar ci yoon pour teg ko ci yoon ba ñenn ci doomi nga gox ñoo ñëw ñaan ko ni ko ay la yéwén xol bu rafet bi ñu la xamee woon bul ko bàyyi baal ko mu baal ko tey nag laalul maire suñu dëkk la bëgg a tilimal ñun doomu nga gox duñ ko seetaan parce que nag sëriñ yu baax yi fi jaar ak monsieur le ancien bi fi bi fi jóge ak kii fi nekk tey rawatina kii fi ne day jàmbaar ci yóbbu nga ko sori kooku nag du def ay effort pour yóbbu nga ci fu sori pour taaral ko ñu am ndox courant bi yokk dëkk bi leer ñu nekk ci jàmm di dund suñu jàmm suñu salaam kenn bëgg a jóge fa la ñëw bëgg a empêcher duñ ko nangu. ñu wax suñu frère ne ko xañ na bu waxtaanoon ak kilifa muy Idrissa Seck dina ne ko ah booy nga gox moom tudd fa lu ne ba mu def suuf tudd fa lu ne ba mu suuf dama leen di wax ni bu ñu doxee tuuti fii ci ginnaaw. daañu fa fekk ñaar fukki hectare ak ñaar yo xamni leader mu Idrissa Seck jamono ya muy am doole aduna ci la defoon ay taf yeungal ba jele ko ci loxo yi ko momale ko boppam xam nga lolu rek ben la mu ñewat ci benen mu jallar bi ko fekk fa ben ben dex go xam ni dafa jóge ngekoox dem ba Sinja somon somon bok du moins suñu maam yi foofu lañu daan euh, jëlee ay jën idi bi mu ñëwee xam nga lu mu def daf ko baare te domaine maritime bi ku ne xam na ne loi bi li mu ci wax mooy danga ko war a dànd ay mètre mètre pour man faa dëkk kon ñoo ngi woo ministre de euh, euh, de l'environnement suñu xarit suñu frère Abdou Karim Fafana na ñëw xool la la la Idrissa def foofu baare ko ba am na xale bu fa doon jéggi dafa faatu gan guy ñëw di faat xale yi nag kooku duñu ko duñu ko marhaban bikum duñ ko ko wax def fa benn satadoo boo xam ne moment bi nga ko wax di ñàkk ndox ay doomi nga ko wax yu dëkk ca côté boobu dem ni ko dimbali ñu li laay war a sol sa satadoo bii nga may ñu ci ndox mun leen satadoo bi taxu leen koo jóg kooku yaakaar naa bu ñuy wax ci suuf si nga ko wax bu ñëpp goqi bu nit ñi goqee benn bis dina goqi une semaine ta suuf si du jeex du moori def ni suuf si nañ ko jox euh, population ga goxo wax da ko def ko ay kër 15 sur 15 doomi nga ko euh, dundé ko na dem ci leaderum am ni ko nañu delo suñ ban euh, suñ ñaar fukki hectare ñaar désormais euh dinañ ci teunk maire ndax nak ñoko fal dañu soxla suñ alal na dem def plainte ci turu commune bi Idrissa Seck dol delo ñu suñu momel wala goor ga ca leer nga xamni mat nañu maam combat ba bu porter ba tey jige suufam jot suufam moo gën a jige mu ñàkk ko daañu porter combat bu ko raw pour iri jox ñu suñu suuf duñ ko ko bàyyee parce que ñu lu ñuy maye ñun. voilà moo tax lool loolu laa la ci wax woo nañ ministre de l'urbanisme ñu jóg nag at wax suñu maire ni ko yërmande ji doy na na porte plainte Idrissa Seck mu jox ñu suñu suñu ñaar fukki hectare ak ñaar. koo demal élection mu gaña la bureau de vote yëpp mu gaña la ko dem ba ay élèves am ci politique ngay xëccoog ñoom que porte boobu a jaar mais jortu naa ne wax ju ko wax ju wax ju lëkkaloo boo ko gisee danga koy xam mënoo jóg ni da ngay kaasal do da ngay kaasal nga ko ci seen alal pour mu ñëwaat dàq ginaar wax alal soxla wax na li mu bëgg dama ni cokkeer mënta réer morom ja ci mbooy xamante nañ Mori bu bëggee commune bii na takki dàllam wàcc ci suuf li maire def investir alalam investir euh, euh, euh, ak jotam investir énergie pour jot ci commune bi bu ko deful jot commune bi